que vaille que vaille comme duggoon na ci piège bële te Macky bi reporter reporté élection bi peu nga doon gis ci ay nit yu ko don défendre ci ay nitam peu nga gis peu de gens de son parti yu gën di défendre Macky Sall critiques yi di jugé fep à l'échelle nationale internationale fep tu as vu mm. mais d'une part aussi lenn mën nañ ko nangu il a mm. aussi il a même quand même euh, sacrifié son candidat aussi Ah on le voit. oui il a quand même sacrifié il faut oser le dire parce que démarche yi da koo ok soutenir ko ci benn côté aussi man bi ma njëkkee sama xel njëkkee ñaaw mooy bi commission d'enquête parlementaire bi taxawee président Macky Sall moo tànn Amadou Ba def ko candidat mais moom moo ne dem leen dooleel waa PDS ci sa candidat bi nga tànn mais l'ol ça peut susciter des interrogations quand même Quand le Macky Sall mës a taxaw am intention wu ñu yëkkati dossier de corruption mu nan na loolu leer. Hmm. Alioune Sall do rakam ji ñu fi affaireu euh, scandale ci ci affaire pétrole be gaz bi est-ce que taxaw na leen na leer domam barki Demba Ndiaye lañ ko jiñ fi ay affaire de nervi est-ce que taxaw na leen leer. Hmm. Mansour Faye ñaata yoon lañ ko fi jiñ détournement. Hmm. surtout bi mi nek ministère de de de euh assainissement. mu so dégg président na leer. affaire munitions yi maître Moussa Diop doon wax da nga dégg mu ne la na 45 milliards yi da ngaa dégg mun la la leer armement yi da dégg mun la la leer ko rapport Covid 19 bi da ngaa dégg mun la la leer voilà léegi lan moo tax ñu jiñ son candidat bi nga xam moo ko tànnal boppam ñu choisir ko mu ne na leer kon yaa a ngi roche yaa a ngi sur roche. d'une mm. part aussi il ne faut pas également tous les arguments de Omar Sow par rapport ak euh, ak euh, ak euh, ak Macky Sall. Mm. Macky quelquefois aussi sacrifié à euh, hmm. Même dans les campagnes, il ne l'a pas soutenu. y a une loi pour interdire. Hmm. Donc, les principes démocratiques, la morale, mais il n'y a aucune loi dans ce pays qui interdit au président Macky Sall d'être aux côtés de Amadouba pour le soutenir lors de qui, comme Ousmane Sonko, fallait jamais. Macky Sall voulait se débarrasser de son candidat. Amadouba et Et l'autre démarche, il alors comme danoon leen da ngeen di dof doflu. Hmm. waaw bàyyi ma leen wa bàyyi ma indil leen ki leen gën a dof nag la libération de Sonko Diomaye libération des détenus politiques ñu bëree bëri nga yaakaar ni impact wul ci vote bi. Hmm. ah ñaata détenus ñoo génn. Hmm. ñooñu rek bu ñu voté ku ñu votel nga gañe. Ah? te ku euh, te ku si génn avertir. waaw euh, day na waar. léegi nag yooyu yëpp boo ko analyser euh. aussi di nga xam ni ce que Omar a dit aussi y une part de vérité dans ça mooy. Euh, le président Macky Sall a sacrifié notre candidat. Alors c'est clair exactement. Alors c'est clair exactement. donc d'après ni li que Modi le conseil des ministres am na ni li que mercredi bi yemoo ko 27 27 mars 2024 euh, fa nga xam ni it euh, palais si communication qui n'a xam que Modi Macky Sall rafetlu na bu baax a baax baax li ne que Modi élections élection présidentielle bi itam sax na nga xam la daal Sénégal ak li ko daal di wër mi aussi li nga que Modi le ministre de l'intérieur administration territoriale bi ba li nga xamné que modi administration électorale bi waye tam ak li nga xamné que modi euh, Sénat mom ki nga xamné que modi Macky Sall aussi mi ngi daal di félicité bu baax a baax askan wi nga xamné tam ñu génn daal dem voté ji mom ki nga xamné que modi le président Macky Sall aussi mi ngi ñëwaat si euh, li nga xamné que euh, Modi audience bi nga xamné tam itam amaloon plus de 2462 observateurs ni daal wara war a mën a tëgg li nga xam nekk moo élection bi dans les règles de l'art le président Macky Sall aussi mi ngi félicité waat encore une fois ki nga xamné que moo Bassirou Diomaye Faye bi nga xamni tam itam fal nañ au premier tour de la présidentielle man ni kon ki nga xamné que moo le président japp na ni tam euh, li nga xamné que moo ko fi daal di nak dina daal di doxal réew mi comme ni nga xamni tam non noonu la ko daal di bàyyee waaye itam en vue de l'installation dans les meilleures conditions du nouveau président de la République élu le chef de l'État a demandé au gouvernement au ministre secrétaire général de la présidence de la République et au ministre euh, secrétariat général du gouvernement de faire prendre toutes les dispositions requises pour assurer notamment la préparation des dossiers de passation de service Manu ni kon ki nga xam ne que installé ki nga bassir que moo di euh, Diomaye euh, si que présidence bi nekk di sàkku si jël guddeeg secrétaire général d'État étant donné étant donné daal di gaaw jël seen ay matukaay ki nga xam ne que moo di Diomaye di si li nga que communication ki nga xam ne que moo di président Macky Sall nag

voit un autre président Macky Sall justement Serigne de plus en plus on voit un Macky Sall pacifique que je suis fait exactement parce que ça, ah. il mi ngi nekk si remercier euh, dugg na bien beneen liggéeyam que ngi dit di di saafonte mi que dit di à ba waa APR sax ñu bëri ni est-ce que Macky nous exactement si des faits de à ñoom am ko ah mais c'est un président sortant aussi parce que mm. c'est ce qu'on souhaite euh, également à tout euh, président sortant mm c'est de passer, euh, c'est de sortir avec une vraiment. Mais euh, mais ces deux semaines, sans dire que Macky Sall mi par la grande porte. non Macky qui attaques yi dañ na non non non non non man xam nga j'ai toujours dit que ni meunatul génn par la grande porte. parce que rien mm. euh, ne peut-être il peut passer par la petite porte mais quoi que l'on puisse dire aussi il faut lui reconnaître un mérite mm. il a fait beaucoup de choses pour le pays pour ce pays ah Fallou. Mm. on vient vient pas. Il a fait beaucoup de bonnes choses pour cette République-là, mm. surtout en matière infrastructure. Mm. li qui est tout tuuti doxalinam mooy le bilan immatériel. li mm. di la gestion des conflits politiques est un dégénéré ba jural ko yoo xamante ni na ba loi d'amnistie et consort man wax tout présent. yi ma xam yëpp bu ñuy génn bëgg vraiment avec une sortie honorable bu ñuy ñu leen Maintenant, ces derniers moments, il a fait le maximum possible pour mm. avoir cela. Mm. mooy indi na loi d'amnistie. boo xam forcé na ko les sénégalais. Mm. baale na jéggale na. baale na jéggale na par force mm. nag. waaw donte nag ñi mu ko defal bëgguñu mais par force moom indi na loi d'amnistie bi. pour pacifier l'espace public. parce que mënul dem aussi bàyyi fi coow li. bu mm. fi bàyyi woon coow li d'une part da ngay wax dafa dimbali ñenn ministre am parce que tey coow li na mu waroon a demee amaana mën na ko bañ a demee. demeeti libéré na détenu politique yi. tey l'opposant politique politique le plus en vue libéré comme muy Ousmane Sonko. on a pu éviter l'irréparable. délai. Bassirou Kasso pour une co présidence l'histoire retiendra sur mais c'est le scénario de Lula Lula da Silva au Brésil. Hmm. c'est comme ça. Hmm. Lula Kasso le le hmm. def campagne gagné. te pourtant rival à mon côté de. ko mais fii li parce que j'ai battre campagne te nar gagné l'élection. mais oui mais il faut que ce serait une humiliation nek kasso ba pare gagné la. djigi mm. kasso mm. ñeu def ak yow passation de service. moo tax moom tamit amna fuko yalla ko d'une part. Mm. parce que gatché bobu eh, yalla éviter na ko tu as vu. mais malheureusement def na le maximum possible ces derniers temps pour. vraiment apaiser la tension. pour calmer les ardeurs. tout à fait ku lii la nag. waaw moo tax ma ni rek. djika euh, ko rek. Euh, mais xam na ko de moment ak ñi ko naan dóoral tëjal. mais dama ne la. loolu lépp euh, nëbbu na ci lu mu lu bax pourtant liggéey na de liggéey na Sénégal de. mais wax naa ko ci yaa travaille. franchement ñun man fumay ñibi presque fi, Malika fii. 15 minutes egg na. Hmm, franchement su ma jëlee oto 15 minutes ma nga bir Malika. il était mal entouré. c'est son entourage moy wax les moments les plus difficiles te c'est un homme très courageux xam nga loolu. am un moment bu nga xamante le président Macky Sall il était seul dans sa dans son combat. Hmm. merci événement merci naan boo moytul coup d'état mën na am taw hmm. mom hmm. rek mo taxaw di jengu mom rek hmm. waxante deug bimu mu ba affaire bi am calme la ñu bari ñëwaat di wax maki xamna ni nak mi ngi dem mais xamna ni amul lu ko neex itam ci ni mu demee parce que ci génn bo xamanteni ni génn mais mere nga ñu bari ci say ministre mere nga ñu bari ci say DG parce que liñ warona def sa digënté ak yow defuñu ko mais nak nguur guy jeex mo demee non Abdoulaye Wade ngi nii ba mu bëggee bam mu na ba ci yoonu daam daanu. fune ne lañ koy wax da ngay wax sax nit duñ ko jëfe da ngay wax nit duñ koy jëfé c'est quand même triste mais quoi que l'on puisse dire il a du mérite Quel que soit ses dérives il a du mérite. il a du mérite. il a apporté beaucoup. il a travaillé et à l'échelle internationale aussi il n'est pas mm. n'importe qui. Mm. il est très bien respecté. Mm. donc Macky bari na ay conflits politiques yo xamante ci ña daan dem di def les négociations mom da ci doon bokk. dañ ko daan woo dafa daan. Hmm. mais euh, loolu moo ko jural tey conseil spécial duñ ko def. conseil spécial ak P4 bi. ak aussi ONU bu mu jiite woon. ONU ak yeneen ak yeneen waaw. mais Serigne yan erreur la Bassirou Diomaye Faye war a jàngee si gouvernance am pour peut-être ne pas bañ a tombewaat si piège bi nga xam ni itam Macky Sall moom foofu la ko opposition bi daal di piégé. mais wax na ko wax na ko si discours am bii di passé. Hmm. il faut essayer tout simplement nga sàmm l' état de droit Fall. Hmm. réew bu amee état de droit coow du am. xam nga état de droit li mu li mu li mu li mu li mu li mu ëmb bari. mënoo mm. wax état de droit te doo wax démocratie. kenn mm. mënu leen dissocier. Mm. maintenant boo boo fexee ba restaurer sàmm l' état de droit mooy corruption dootul am détournement yi dootul am nit dootul taxaw fële di jooy naan sama àq yelleef dañ ma ko salfaañe nit ñi dinañ leen garantir seen droit de marche de réunion pacifique. yeneen ak yeneen yu bëri. moo tax ma ne nañu xeexante ñoom bu ñu sàmmee loolu loolu nag la Macky Sall échoué.

reconnaître la démocratie ce n'est pas seulement la loi de la majorité Les libéraux yi ñoo libéraux la démocratie c'est la loi de la majorité c'est la majorité. Et ça, donne a changé. mais donne yi changé dafa am hmm. c'est aussi la protection de la minorité. et de l'opposition. mais dans une démocratie certes. Hmm. il y a la loi de la majorité mais aussi il y a la protection de la minorité et de hmm. l'opposition. la minorité bi. tey incident yoo xamante ni ay dualité ñoo ko jot ñoo ko ñoo ko ñoo ko indi